Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce lundi 22 avril 2024 sur la chaîne des grands événements suñ jógee dem fële World Bank Group bi nga le nouveau président de la République du Sénégal avec son premier ministre Ousmane Sonko Le projet bi Sénégalais pendant dix ans Mouy livre Bobu ñu bindoon la solution bi au pouvoir de bañ li nga xamante continuité dans les rupture changement total Le projet bi teg ko ci place li plan Sénégal émergent di. PSE suñu sukkandikoo nak ci li nga xamanteni remplace moy remplacer PS ak li nga xamanteni moy projet bi li di ben expert daal di corriger li nga xamanteni moy duo bi nga xamanteni moy le président de la République Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamanteni moy Ousmane Sonko Ginnaw bu mu sukkandikoo xamanteni ka que li di projet bi dafa don ben ambition bo xamanteni dafa remplacer li di plan Sénégal émergent mu don ben bouteille bo xamanteni suñ ko un litre le, bu bëgg contenir li nga xamanteni moy 100 cent litres Manam mënul nek manam projet bi bouteille butéelu un litre la alors que li nga xamanteni moy plan Sénégal émergent bouteille la bu def 100 litres imaginez est ce que bouteille yu cent litres ben bouteille yu un litre mën na ko remplacer du samay wax nak ben expert mom moko ko def fo ca World Bank Group. bim ñu xamalé lolu xamal na ni que dal lepp lo xamanteni ki kii di Ibra Diaw en tant que expert ci ben communiqué bo xamanteni li di conseil des ministres bo nga xamanteni mo jall mardi 9 avril 2024 bi marqué won li di premier conseil bi nga xamanteni moy nouveau régime président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa daldi instruire ki di premier ministre di monsieur Ousmane Sonko mu daldi di li nga xamanteni moy référentiel jëmale ko ci walu politique économique sociale ak li nga xamanteni moy consacration jëmale ko ci sen projet batay suñu sukkandikoo ki nga xamanteni mi ngi expliqué di le l' ku jangul du sari, leer na nañ loolu lu mu mën a xamle maanaam mi ngi demandé wu est-ce que amna ben inspecteur des impôts bo xamanteni jangana ben planification ginnaw bi nga xamanteni toujours ñom dañu conteste li nga xamanteni moy projet bi ginnaw bu mu inclure li nga xamanteni moy ben programme bo xamanteni ni dafa sukkandiku ci plan pour remplacer li nga xamanteni moy plan Sénégal émergent bi nga xamanteni mom mo nek ci mesure jaarle ko ci ben poussière bo xamanteni tay lepp lo xamanteni tey sukkandiku nañ ci jëmale ko ci clameur bi nga xamante ni dafa indi ay émeute yu tuddee woon ko anti système dafa tombé ginnaaw bi ñu découvrir li nga xamante ni mooy ay carence ak ay incohérence jëmale ko ci seen projet démb tay en tant que des ministres yoo xamante ni dañ leen placé sous l' autorité du premier ministre mu doon contrairement ay dispositions constitutionnelles ginnaaw loolu nag tey mën nañ jàpp ni que projet pour remplacer benn plan dafay doon benn mbott boo xamante ni dafa bëgg a faire la plus grande li nga xamante ni éléphant en tout cas moy ay kàddu ki nga xamanteni moy expert en tout cas contre na li nga xamante ni maanaam incohérence yi nga xamanteni duo bi di le président de la république Diomaye Faye ak Ousmane Sonko indi nañ ko maanaam jël projet bi dal di koy remplacer li nga xamante ni maanaam plan Sénégal émergent dafa melni nga jël ben mbott teg ko ci place su ñay donc yéenay yéenay def seen différence imaginez mbott nu mu toll ak ñey nu mu toll donc projet bi moy mbott plan Sénégal émergent moy ñey en tout cas du samay cadre muy cadre expert bi nga xamanteni mom moko moo ko xamle ci Opéra News ginnaaw loolu daal mi ngi xam ne que daal lépp loo xamante ni daal sukkandiku nañ ci dañuy xam ni que daal seen projet boobu daal benn butéelu un litre la alors que Sénégal Émergent un litre la donc butéelu téeméeri litre maanaam Soko ko bëggee remplacer benn butéelu un litre ndox je crois que wait and see maanaam li ci kanam rawuli bët nañu toog seetaan en tout cas seen projet bi dinañ ko jël teg ko fële sukkandiku ci li nga xamante ni plan Sénégal émergent su dee bëgg nañu doxal li nga xamante ni mooy mandat 5 ans pour que sénégalais yi au minimum quelques réalisations yo xamante ni def nañ ko ndaxte pour wal leen ni ci plan Sénégal émergent la ñuy continuer ndaxte bi ñu njëkkee dem foofu ci FMI dañ leen dàq pour ñu revoir seen copie kan moo dellusiwaat mooy ki nga xamante ni mooy initiateur plan Sénégal émergent di Macky Sall pour c'est une première sapeur pompier et je crois que Macky Sall qui plan Sénégal émergent bob la dalle accenté pour que wadi FMI daal di lebal kii nga xamanteni moy Sénégal li nga xamanteni ni soxla nañ ko walu trois milliards batay sénégalais war nañ fa teg baaraanamu tuuma Macky Sall ci fukki at ñaar. fukki milliards ak juróom la lepp fofu ci FMI ak banque mondiale ci réalisation yooyu def Ousmane Sonko ak gouvernement ci fukki fan ak juróom-ñett lepp dañu lu tollu ci ñetti téeméeri milliards. image leen ci fukki at ak ñaar Macky Sall leb fukki milliards ak juróom ñoom ci fukki fan ak juróom-ñett leb nañu lu tollu ci ñetti téeméeri milliards en tout cas sénégalais yéen a jugeel seen bopp. <laughs>